naa saf naa saf naa saf a saf a saf mag lu mu nangu ñu te ko ko dagan ay jama di leen film ñu di ma bow ah billaahi those dogs they like don't film me at black people for no reason but I don't know if that dog is racist I didn't I wasn't even near them or anything <laughs> yenn xajituwaay yi war ki yàlla bëgguñ nit ku <laughs> fañ lay vote leen dara seetlu naa leen I recognize all the racist dogs honestly they bow at you for doing nothing just because of your skin color or what and people saying the dogs are blind they don't see color that's lie I can't trust that moytul de I know right man Ami Diop wax àdduna rek danaay moytu waaye yu bëri duma koy moytu suma ma yoon man noppal suma àdduna bu mu ëpp xaj yi defuma leen dara de xaj yi fañ réesi te bon ta bañ nit ku ñëw man xaj yi jegefuma leen sax ñu tëb di xew-xew yi ne ñoo koy yëg taluma leen sax sa docteur ba laa jëm suma yaram bu metti demoon naa fa ne leen suma tànk fay métti ñu jox ma diw gu bon tànk yi xaw naa tane waaye diw gi de duur moo ko taneel diw ga du koy jëriñ dara su ma taalee téléphone bi du ngeen a mën a gis ndi bi jant bi ma ko jox gannaaw moo tax su doon nii laay deme si ngeen may gis maa ngi look so nice suma African dress you know waaye su ma defee nii ah <laughs> man xam nga caméra rek laa xam suma xarit yi dañ ma day wax ne nga war na study caméra nga nekk nataalkat man su ma lay nataal sax moo la nataalee mooy raw professionnel nataal ma lay position su ma la nataalee laajal ñu ma xam caméra laa waroon a jàngi nekk photographe lamp yi kare yi moo tax fii ku de moo dama xamut liggéey na safa safa saf maag lu mu nangu ñu tekk ko daga na ma daal yaa ngi melati ku dem tool bay ñibbi ku bay ñibbi Hi. When was that? was talking I did not see you. Maybe that's why. I, I, it's not like on purpose. You have you've not done nothing to me now. How are you? How are you? I didn't, when I was talking to somebody like yes. this or on the phone. No, outside. You ah. to someone was standing next to you. I was saying hello, hello. Uh, I, I did not no notice response. you because I was focusing on the person. Then maybe that's why. Okay. Mm. How, are How, are you? Fine, thank I'm you. Right. It's been a while. You forgot me now. No, it's not like that. I always when I see you, I recognize I even, you. I, there was a <laughs> time I told your there was a time I was asking your daughter, I said, if you have a phone number, I don't even have your number. She was like, you told her not to give your number to anybody. Especially men, yes. Oh. Yeah. But you yourself, you asked me for my number, and I was telling you, what's the point now? Because you were trying to invite me to your house that day, and I tell you, what's the point now? No, no, no, no, no, no. There is, see, let me tell you, there is nothing wrong. Even though it's a family friend, people have been coming to my house. I don't go to men's house like a family friend. I'm a single mother now. Okay, okay. Tall, handsome black man. I go visit him in his house. <laughs> That's not safe now. you wouldn't do that. Oh, you're nice. Steve. Yeah. Especially, in the part of the world. I, tell people that even though I, was discussing something with my mom, I was telling her that I'm not the kind of person like, oh, girls are coming to my. Some people will say, "Oh, I'm bringing a girl." I don't do that. Yeah. if it's a family, if coming to visit me, I can just after my cup of tea, I'll say, "Okay, what will you like?" I give the person cup of tea or coffee or orange juice. Yes. Oh, that's nice. Mm-hmm. but we can just keep it like whenever we meet, we chat now. <laughs> Let's just leave it like that now. <laughs> See ya. Bye. <laughs> Eh, kii ak góor ak Nigerian gu ma yàgg a topp la waaye nu ma jéggal rek xam góor ak Nigerian gu xees gu ñëw suñu liggéeykaay kooku it léegi tey mu ma xàmmee naa góor goo xam foo bugg a ciis waaw ma gis rek di ñem mu ñem mi na haay foo jógee ma ne ko Gambie oh nice mosuma gis kii ku jógee Gambie ma ne ko ah ku jógee ñu jógee Gambie de bëri nañ Scotland gi Edinburgh gi ah ah mosuma mit kenn de waaw maa ngi tudd diw sàngam ndeke Gambie ka danaa koy dégg ndeke xam nañ jigéen ñu rafetee nii ma ne ko xaw tàmbalee ti nga walla gis naa ko de léegi teemu ciis ma góor ak na jigéen gu xees googa te kat fa ñëw xees ñaareeli fanam ci ca liggéey ba mooy démb mooy cot-cot yi Thiès mooy yéen tubaab yi ko ñu rey la ñu wutam lan ñàng te raglu te réesis tubaab yooyu ku leen ngi xam ne fañ raglu te réesis xar-xanam yaa nga mel ni ay gaynde yu si but ne ca oto boobu naar bu soxot ba bitam bitigam ba lakkoon ba ko sarse xaat ba hubbi baax na dana xam ne yàlla naar bii ni soxotee ta bon te bañ nit ku ñu baña sarsi xaat na bitikam ba noo noonu ñi faalewut lakk ga ñii li am ci xaalis moos moom bitikam Nigerian bi fa ubbiwutam kii jaay jën yeeg yooyu fii am nga ma fee bëggoon a jaar jënd jënd te kenn xamul ma bëgg a togg mbaxal ma ne woon suma xel fan yëpp moom laay togg tey kaanee di ko ba suma biit bi daw te kat maa feebar de gune nekk tubaab gi de robam bi rafet na te xonq beautiful gune ga réer Sénégal du ko ñaanal mu feeñam ay man jaaxle naa gune gi yal na feeñ gune gi ki ko jël yal na weeru te gune gi bu ko dara jotee ko ko jël du ko jik ñi ci dugg ñëpp danañ feeñ te du leen jik is beeta ngeen génnee gune gi léegi wax naa leen ko nag gore xa di ta xame jikko xaj ta bon xëy man àddina su léegi si xama lu tax muy dox ba tey lu tax yàlla dañu seetaan ba tey këpput àddina si walko ko moo ma jaaxal àddina si lu tax mu on ba tey loolu dana may jaaxal de lu tax si on ba tey loolu dana may xéem loolu moom fu may xéem moom tëdd ba guddi mu xéem ma àdduna si nu mu onee ba tey àdduna si fa soxotaata xay dal ko ba nga xane xama lu tax mu on ba tey bu ma jaaxal man fii de ay góori nigériens yi fa ñuy taseeg man di ma Thiès xat yi ma fi dëkk parce que góor gu dugg jinne fay taseeg man di ma Thiès supermarket yeeg fu ne maa dee bañ de di ragal hello broda <laughs> naka mbaa defuloo dara <laughs> maa ngi si sama téléphone bi di waxtaan ak sama bopp rek thank you so much waay brother <laughs> ah jërëjëf waay maa sa gannaaw ah, kooku ab brother Gambien la dama ko dee gis ak jabaram ku baax lay niroon yal na ko yàlla barkeel ak jabaram ma ne góori Nigérian yi de li tax ma di leen daw mooy su dóor Nigérian sax góor ñu bëri rek in général lii de fa xamee ay dëkk te ci yoon wi nit ñi danañ ko tënkoo gaañu di ah yoon waa ngi nii mu mu ne ci yoon dafa xame ay dëgg yu ñawa ñawa ñawa ñawa ñaw ah ko ah tubaab yi di fañ si danaa ko damm de yàlla bu ma gaañ gumbo buy romb nag dafa xam tubaab yoo xam ne fañ gumbo man maa damm yëpp waaye ma damm tuuti xam tubaab yu gumba xamee seen i xaj ndeysaan di dox xaj ba di leen yóbbu fu ñu bëgg a dem su xaj ba xawee ñoom nii te nii lañ war a xaw ba pare ñu dégg yi xutti seen xarxanam bi na dégg yi fa leen di xutti ci xarxanam te tubaab yi seen yaram yu baaxul saa wu may romb ba gis façon yii ma koy dam keroog sa aadi fa ko doon def moo tax nit looy de gune di la gis aa pareel te xam ne gune ga dana ko def buy lu baax la lu bon la kere fay xandement aari mu géeb ab bant bu ne ci yoon wi ne nii xam nga fii fa bari ñax ak garab bant ba ne ca yoon nga xam ne gumba bu doon dox fa koy fa koy xutti ci xarxanam du ko gi ci suuf rek la ñuy def seen bant yi nii ak xanda seen xay yeeg yooyu rek aadi taxaw di ko dagg ma ne ko mo aadi looy def nii nañ dem mu ne ma yaa bant bi laay dindi in kees su fekkee ne nit a ngi romb ko xam ne gisi ko ma ne ko ah ndeket aadi li ma li ma gis may def nii a tax mu di ko def ji nga ko de gune noonu la lu nit ñi bind nii allo afternoon nit ñaa ngi bind man may teewu teew yi dox rek di wax <laughs> léegi tey ma yegg sa docteur ya suma semaine mi de lañ wax ne ma yót leen ko ñu seet suma semaine mi ndax man suma yaree fay métti ba pare xaw ma am infection xaw ma xaw ma urine infection nag xam nga façon yooyu rek te suñ liggéey wanag wanagi liggéeykaay bi ah suñ clean yu bëri yi bokk si de dañ ko dee clean waaye du bët bu set léegoo léegi fay sant njaay te léegoo léegi su ma yàmbalee sebel du may ne di lal kayit ci wanag bi soog a toog may tëb tëb tëb rek toog waaye semaine mu nete de ma koo semaine semaine mu nete moom laay de mu ba tey ma kool docteur jàpp sama bopp man Ami Jóob a ragal feebar suma yaram bi di métti may muñ léegi yaramu na tane na de to be honest métti liggéey bi mu ngi koy miin si tane na tarap tarap waaye seben mu nete ma ne loolu wóorul parce que tamay gaaw di seben suma ma sebenee dem sebenaat seben sebenaat ma ne noo salaa leen kool démb ñu ne tey naa seben indi ko seben ga moom laa def ci mbuus gàdd ko xaw ma butéelu ma ko def de ma des ma seben ma ci mbuus gàdd ko di ko yëti tubaab ya ñu seet ko wax ma lu ma jot jox ma sumay garab ma jàpp suma bopp moom laay demal ni li de mhm. loolu laay lijjanti ji ni le def suma seben bi ci mbuus def ci suma saak di ko yëti tubaab yi ci loolu laa ne moo ko rusee wax tubaab yi te xaw ma sebet mu nete moom pour lan la sebet mu nete non ak man li may naan ci ndox yëpp loolu wóorul ñu koy lijjanti ji lu mu def gi ngeen ni may tenkem tenkemee nag ni màggat mu si but di enjoy naaj wi ba may fàttali Afrique bu naajee nii ba may tenkem tenkemee nii ci pegg bi yoon wi nii surtout bu xamee ay garab nii suma demee Afrique dox ngoon nu ma dee neexee si si xaal bi fu nit ànd ak suma yaay waxtaan wala jos dox man kenn ànd ak suma mag waxtaan kenn newut fa neex fi ne nii yi damay tàllalee nii ba fële wala ma jàll tàllal fii de fa xam lu ñuy def sax lu tudd simayates simayates gëj ñaa koo def de fa xam jigéen ñi fañ leen di tëddal xam luñ dugal ci seen biir lu ko dindi ko tes ko te ñu ne xaw ma juróomi xat yone na ko nit war a def xaw ma loolu danaa ko laaj docteur yi loolu waxoo gëjee def ëpp na juróomi xat war nañ ma koo defal seetlu ma jot ndax dara jotuma am mën a te seetlu ma jot nag fu ma toll surtout moo daan sëyeeg bàyyi gune itam cagata bugg jigéen fu ma tollu may test naa defal leen ma HIV bi ak test yi àddina si yëpp may ñëw rek waaxu rek dog def suma appointment rek ne leen defal leen ma ay test lu xew ma ne dara ngaa tëdd ak ni ko war a tëdd déedéet maa jël suma bàyyi suma suma suma jëkkër fa jigéen mhm, moo tax may test ndax bu ma jox feebar docteur ba ne ma soo xeeboo nga ba ko wala sooy tëdd ak moom mu sol kondom ma ne ko ah loolu kay ba ko sëy ba pare di sol kondom loolu kay moo ñàkk a mu ne ma ah kon dee nga ba ko doo mën a dëkk si test yi góor gu xas ba mel nii mënoo ci dara benn bés ngay test ñu ne la xam nga feebar nooy def ma ne ko ah ku fantas mu ne ma ah baax na sala jàpp sama bopp day wax xam ne kii wax na dëgg salaa tàmbali di ko ba yombu toon ma ba ko de waaye man Ami Diouf su paree ba góor aka maa koy ba duma ko nangu ne fa te sa xel mi du dal ndax borom ko bugg jigéen ko bugg jigéen sa xel du dal soo melee ni man xaw ma lu kii di bind yaa xaw ma lan afternoon wallahi waxal de ma wax lan la noonu man kay fi wax yépp kenn xamul lu la mënuma fàttaliku ban la su ma tànki fay métti ba pare méttiwul bu baax léegi de min na liggéey bi waaye su may dox may dégg suma tànki naan kik kik kik loolu it bëgg naa koo compléter waaye te gisuma benn docteur ndax tey fañ ne naa yóbbu sa benn ma rek joxe ko ta dem fii num naqadee a gis docteur surtout ba corona amee tey docteur yi xam fa ñuy daw nit ñi xaw ma soo xëyee kool te kat soo xëyee suba diggante juróom-ñetti waxtu genn wàll ba juróom-ñeenti waxtu rek ngay kool genn wàlli waxtu boobu ci nga xam pour kool def appointment bu la rawee jeex na te genn wàlli waxtu boobu si la ñëpp di kool nag soo koolee ñi line baa nga busy doo dugg ba juróom-ñeenti waxtu jot soo koolee juróom-ñeenti waxtu ñu ne la fees na loolu la Scotland mel Edinburgh gi suma area bi xam nga ban area de te kat docteur yi duñ joxe garab waaw waa yi ak joxe garab ak lu leen rey lañ xamale waaye suñ nee ba di la jox nag dee nga de suñ nee ba di la jox nga xam feebar bu serious bañ di la jox hee dee nga waaye nag pour pour loolu pour nga yegg foofu mooy problème comme ñu ñàkk fayda yi duñ la siy jox dara meluñ ni Afrique Ami, how are you doing? I miss you. I'm fine, thank you. I'm always doing videos. Are you not on internet? That's why. If not, you won't be missing because me, I'm always doing videos. You guys can't see me because the sun sign is behind me. See? If I was walking like this, mm, I would make you see me. But right now, you, look at this. You cannot see me. That's why I just face the camera the opposite side. fii Angleterre la Scotland <coughs> Scotland de fa mel ni nga ne Sénégal ne Casamance waa Angleterre côté bële ay London ak yooyu dëkk kaw yi lañ def lañ ñu def de niti kaw kaw lañ ñu def mhm. niti fii ni ñuy waxee àngale seen àngale yi àngale fa mel ni suma xolo fi kaw kaw yi noonu la mel ci ñëw yépp rek waaye faale fu ma ko man miin naa fi kaw kaw yi aadina fa bugg ñu toxu London de bañ fa demee ba tey kenn xamul jàmm bu seet mu ne kañ la ñu toxu London soo mën naa am danaa toxu London waaye du nekk rend te du nekk déwén ko faatu fay jàng fa toll si digg jàng du ma ko bugg a move right now faatu moom moo bëggut a move right now or even move in general xam naa xaritam bi fi xamata waaye aadi faalewul aadi xam na ay waaye connecte ak xaritam bi tout mooy comme Fatou ni mu def attaque ak xaritam bi aadi xam naa suma jikko la xamee <laughs> ah, soo mbinee attaque si nit torop baaxut soo attaque si nit ku baaxut si yow gisuma la mbaa soo ngay attaché nit waaye fa xam xam limite bu dul fii de xamal lu ñu def oh citizen advice fii de war naa fee ñëw hi I would like to come here do just walk in okay <laughs> okay Uh-huh, that's nice. I would like to come next week when I'm off work. Today because I'm going here. You can sign up today. For next week? Yeah, sure. But I need to find out my router later on. Later on. Do you guys have a number? Uh, or, or I can go on the website. Yeah, you can. Citizen oh, advice. Uh-huh. Uh, yeah. Right now I'm going to the doctor, that's why. Okay. I have an appointment there. But yeah, I would like to come here because I, I want to, there's something I need advice for. Okay. Mm -hmm. Monday is the best day. Monday is the best day, okay. Yeah, from 9. From 9, okay. Uh, there'll be a, a, line of people, so. Okay. I'll find out if I'm off work this Monday. I'll definitely yeah, come. Yeah, it's only Mondays. Uh huh. All right. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Bye. citizen advice You are the best, my dear. You have a good heart. I just want to have a woman like you. Oh, want to get a woman like you. you will have a woman better than me even inshallah are you single who are you and where do you live I meant, well, I'm told to drop my urine sample here this morning. When the doctor called me yesterday and asked me to drop it this morning. Hey, do you have it? Yes. Do you have an appointment or you just to drop the sample? Yes, he said to just drop it. Just drop he said, yes. I can put it in a bottle for you. I put it in two oh, different yeah. bags. <laughs> mm. Yes. the bag for me, okay? Thank you. And the toilet is somewhere here, right? Okay. Good night, Star Stacy. mu ne danaa ko def ci digg laay si biir bi xaw ma nëbb ma sa demee ko la ñu gis. ci mbuus laa ko def jag ma jàpp sama bopp. woy yàlla bu tuuru I hope it's not gonna drop guys oh my god woy mm-hmm. baax na feesal naa ko dell ba tubaab yi buñ ko ubbee mbaa du tuuru seen kaw taxaw ma wàññi ko suur li ci des tubaab yi koy yëg ci sëñ bi Alassane Wo ci nit di bindee pour seen tubaab bi la waaye xawaa ah, ma dem jënd foom bi ak kaw sebe bi ñu wax ne woon jënd ci butéel woy mbëkk naa Can I please borrow a pen? Excuse me, can I please borrow a pen? So Thank you. hunde lum ɗo baji nomba kawma kawma baji kawma vra kawma lool ɗo bindimo ɗo date of bat wa date and time tey ban bés la guys Is it only 13? Oh, only. Is it only 23? What date is today? I can't remember. I know the time, but what date is today? Did anybody know? I don't want to get out of the phone, the live video to look. <coughs> I need to do date and time. I'll leave it till after. Okay, 24. Okay, thank you. 24. 06, right? January, February, March, April, May, June. ok boobu pare na. docteur laa tey de suma doom ji docteur la bëgg a di mu ne faat date of birth what the hell date of birth ma def fële oh jëluma góor go gender female female may def male contact number génn si live bi te ñëwaat because suma number bi suma main number bi bokkut ak whatsapp number bi te kraamuma ko xaaral ma ñëwaat guys I'm so sorry clinical requiring what did it mean clinical requiring xaaral ma laaj jigéen bi loolu sample requiring labeling what urine sample requiring dipstick test symptoms name I think this part is for the for them to do. Let me go and ask them. Hi. Oh. Yes. Is this part here for you guys to do or? Because I don't know what to do. Yeah, so to go up bits for us, you your, name. Okay. wax oh, na dëgg ba mu ko bëggoon a xaar yëpp ba bi oh Oh, okay. Oh, thank you. Oh my God, my back Thank you so thank you. Bye. <sighs> pare naa ko léegi nañ ma kool waxal ma test buñ gis ak luñ gisut yëpp man simiya test moo waxoon naa ko def sax fàtte naa ko suñ ma koolee ma laaj leen noo koy bukkee simiya test dafa important jigéen ñi def ko ay juróomi xat yu ne nga koy def yooyu dañ lay test <laughs> yéen kay jommal naa leen tey ànd ak yéen si docteur yeeg lu ne ma di ko def thank you I'll be fine not like sick sick. I just need to know why I'm having like a yellowish urine and my body tired and stuff. Thank you. Merci am lii mooy sa xawma lan yes, definitely on Monday if I'm not working. But I'm gonna find out my rota today. So nine to four. Nine to four. But come early because you should have been in the know and asked them about it. Okay. Yeah. Yeah, it's worth a shot. I would love a phone number even because then when I find out my router later on today, we normally go the router on a Friday afternoon. So then I can just book an appointment or just to know. Hi. Hi. Hi. Country. Huh? I want to know whether you have a phone number because I want to come in here next week when I find out my router later on today. But I need to know like I can call and book or just to know. Oh, okay. Mm. I might just yeah, I'm not sure I can Hi. Sorry, over here. Yeah. This part are you looking for uh, to come here next week? I'm gonna find out my router later on today so I know oh, okay. what day to come. To the pantry or for citizens advice or I know. What's that? Uh, well, I want kind of board but You, What's the pantry thing? Is that to the pantry is the shop here, people can sign up as a member, and then you get to do um, a weekly shop. It costs a standard shop, or six pounds if you have um, oh. um, a more affordable shop, essentially. But good a <laughs> oh, I want to come and ask about something and talk oh, is advice. Um, yeah. Perfect. Yeah. I'll get my Thank you. Thank you. You like my dress. <laughs> Thank so you. They do have a phone number, but um, they also have a walk-in here Mondays and Wednesday mornings. Mm -hmm. If you mm-hmm. come at 9 a.m., um, they kind of just see first come, first serve. Monday um, and Wednesdays, okay. Yeah. Mondays have been going on for a little while, and Wednesdays are new, so Wednesdays will be quieter if you want a better chance to get Awesome. Thank you so <laughs> um, much. That's the information on the pantry. So if you do want to join that, then just let us know next time you're in, and we can Aye. give you a bit more information around here as well. Thank Bye. you so much. Bye. Thank you. kële naan ma Monday rek ndeke Monday ak Wednesday la lu ko faale sax fa si butu te ñu ne busy danaa ñëw incha allah xam nga lu ma leen bëgg bëgg a you are doing great <laughs> I'm not doing anything I mean oh my god I'm just going about my day today I decided to share it with they like my dress everywhere I go this dress I have for so long but I sell dresses myself but this one was not including the ones I sell it's just a top alone can wear it with your jeans you know but if anyone is interested let me know as you know I always have new stuff in stock come live with I don't know what who is this Leshita who is that Leshita who is that I saw you commenting this who is that is that a person that maybe I cannot um recognize the username now. But who is that? And why you want me to go live with them? What is it about? I'm just here chilling, you know? Just having fun with you guys, going about my days. I want to share it. Masala sister, I love you so much. Thank you. Love you too. Following you back. Who is that? Let's Lizzie Star, Lizzie Star. Who is that? I'm not even pronouncing it right, I am sorry. But who even is that? Just who is that? Hello, maa ngi si rek. ñuy wax naan tey rafet nga ñoo every time fa ñuy wax loolu dafa ñuy fen man moo mel laa mel oto mooy ñëw every day man benn ami bi waaye dañ ma di wax ne tey rafet nga ëllëg ñu naan ma ngaa ñaaw benn amee bi la oh my yaa ngi ñëw taxaw leen ma jàll benn amee bi la so no point tey ngeen naa ami joo rafet nga tey ëllëg ngeen naa ma ñaaw it's just yéen dama dee bàyyandi ko you know can't be bothered yéen nii nag ma xala soosoo origay tey defuma dara dafa nekk ne dama sangu rek yàggul ma ñëw si caméra bi bo defuma dara suma kanam bi te dama doon nelaw te ma xew suba waaye ma email suma liggéeykaay ne ko duma mën a ñëw damay dem si docteur bi ba pare ma continuer nelawaat ma mhm. tax suma kanam gi mel ni mu xewoo totali yàggut jërë ngeen jëf Birmingham I don't know it know it but I've been there yes I think I've been there twice if I can remember or once I think it's once apart from the airport yeah I've been to the airport more than once for when I'm going to Africa or coming coming back from Africa sometimes I go through Manchester airport or Birmingham but um I think I only been there once yeah if I can remember, that's a few years ago. It has a lot of fruits, a lot of markets, really cheap fruits and vegetables. I love that about it. It's uh, area in UK. Uh, Lancaster, Lancaster or something. Oh my God, I can't pronounce the name. Why is it I should go to I should go live with that. How can you go live with a whole area? Like a, uh, the, the area is a person. Area. I can't talk this morning. <laughs> Why are you asking me to go live with the whole area? You're like telling me to go live with Edinburgh. Well, I guess I know what you mean, but I don't know. You mean I should go there and do live video? <laughs> Thank you. to live there. <laughs> Why? You have to give me money to go there. It's transport. I want to travel even Scotland and live for you guys when I'm off work. You know, and also when I'm off work, I'm gonna be doing Edinburgh Festival this this year comedy, street comedy. Get ready, guys, and I'm gonna live it for you guys. <laughs> I'm so nervous. <laughs> <laughs> but I know it's gonna be fine, guys. I'm just gonna be confident about it, you know, and just talk rubbish, you know, make people laugh. So look forward to that, guys. It's gonna be English, obviously. You live in Sweden. Oh, Adi also wanted to move to Sweden. Adi always trying to get away from Scotland. He's something else. He was saying Sweden is so nice, mom. Sweden have this, Sweden have that. He always do research. So he knows every country that have this, this good thing and that good thing. You understand? <laughs> and the salary for when you work. He knows everything. He's something else. He's always like, when you work in Sweden, you make this money. And Sweden is this, Sweden is that. Let's go there. I'm like, oh my God. Thank you. Love you too. Dooma jàngal angale English sorry. yeah angale nga bind xaw ma mun naa laa jàngal angale dama dee jàngale angale. <laughs> I swear to God guys dama dee jàngale angale di jàngale xolof waaye su ma xiitee si dañ ma dee ree di wax ne man suma anglais baaxul waruma jàngale anglais man nekku ne suma anglais dafa baax ku may jàngal dama la ko dee wax waaye mun naa laa jàngal basic comme yi ma xam you know te xam na technique bu ma use man technique boobu ku jàngut làkk daf dee easy nga xam ko soo ko usee di nga mun a làkk di nga mun a bind yu ndaw ndaw yi soo xasee ba man tuuti rek yi ci des di nga ko jàng after you understand so it's like every other language once It's hard for them to teach that person. I'm telling you this. This is why I want to go back to college and do more English and teach people because there's a technique you use for people like me who never been to school that only us who never been to school understand this technique. Not the so-called professionals with their cup of tea, they don't know this technique <laughs> because they never live it. They never experience, lack of going to school, and how you see writing and how you see reading, and just how your brain work with the world. They don't know it. They're just guessing, you know, or just researching and stuff. But for us that live the reality, we know it. So it's always better, whatever you're working on, it's always better to have the person who experiences it to walk with you. That's why when I teach people English, they do know it. And when I teach people Wolof, they do speak it. I have some, some students, but they're Americans. Some of them come once a month, something like this. Some of them come, the other one come once every two weeks for a lesson. And then she will be learning those words. And she can also WhatsApp me in between to practice the Wolof. And my lessons are not expensive. I charge 25 pounds per lesson. The lesson is like one hour to one hour and a half, or sometimes they go up to two hours, you know me, depending on if the person is getting it or they want the lesson to finish or they want to continue. I think that's good price for that. <laughs> you are very funny. <laughs> Thank you. I don't know. It's just like I'm just real and I'm just me, you know. That's why people find it funny because people are fake now, you know. So when somebody is real, they think you're crazy or something and then they find it funny. Not I'm saying you, you think I'm crazy, but you know. Hope not. <laughs> I don't mind if you think so. A lot of people think I'm crazy because the way I'm so natural and they don't know me in real life. The things that they do, I laugh at them just like the way they're laughing at me. I'm like, what? Even if you pay me one million pound, I'm not doing that. So why you think I'm crazy? I like your face. I am your eyes. <gasps> you are having brown eyes. African lady with a brown eyes. The brown eyes is in the family. My mom brother, ah, his is even browner. brownish. It's, his is even more bright. My mom had it. My younger brother had it. I had it. My son Adi had it. It's in the family. I think even my, my grandmother used to have it, my mom, mom. But thank you for the compliment. Every eye is beautiful as long as it's natural. But yeah, when you have a lot of healthy food, it can make your eye and your skin more bright. more clear and bright. That is a fact for eating healthy stuff, but a lot of people don't know. It doesn't healthy and immune system healthy, no. It also make you have beautiful skin, beautiful everything. Car coming. Ami, you are the best. Keep it up. Oh my God. How I'm even the best. Thank you though. <laughs> I still like my skin is still lighter than my face, but not that bad. Because my grandmother is light, but my mom is very dark. My grandmother is light. So we have light skin in the family as well. so I have my body lighter than my face it's even better now but I hardly like face masks and stuff you know I know a lot of face masks but I hardly do them to be honest I don't do them regular I will be more beautiful ami xaw lan liggéey ma billaay ami niyu ni ni u bukk lii nii looy liggéey ma billaay lu wax nii what is it that this person saying ko xam wax na ma ko wax what is it this person saying I haven't got a clue what they talking about liggéey ma liggéey ma lu wax dimbale leen ma ngir yàlla I'm gonna go and sit at a little bit and then go home cook my mbaxal I'm gonna wash more clothes, cook my mbaha. You know, I wanted to exercise today, guys. Do you guys notice that I've not been exercising <laughs> for so long? <laughs> Don't worry, I'll exercise, guys. I promise. Ah, today I'm not gonna exercise. I'm gonna relax. On Saturday I'm not working. I'll exercise, but I'm working on Sunday. So hopefully Saturday I will be much better. Now exercise a little bit. I don't know how to exercise a little bit. That's the problem. Whenever I said I'm going to do half an hour or 40 minutes, I end up doing one hour and a half. The same job. Oh, you do the same job as me. Oh, we are family. Are you a man or woman? This job is a nightmare, but it's good though. It's very active, keep you fit. You just have to wear gloves all the time. If you don't wear gloves, your hands are Don't worry, I wash my hands and I've not oiled them. That's why they're a little dry now. But I wear gloves all the time. If you don't, look at the marks on my hands. You cannot really notice it. But did you see this one? Did you see this one? All of those are from work. Did you see this one? Wait, let me show you. Um, did you see this one here? You cannot really see it because of the camera. You see this one here? You see that mark here? that one is from walk two and did you see this one that i first showed you uh, there's another one here but here i have new ones too did you see this one did you see this one that one is from walk two and did you see this one did you see that one that cut all of this is from work because when you put the mattress inside and the hotel I work the beds they are electric bed so when you like tucking the mattress inside underneath the duvet that's when you get caught that's when I normally get caught so the beds are so tight there's no space for mattress um for the duvet xawma lu kii bind alga tii xawma lan Labaga what is that lu mu bind nii mooy lan neema na na neena yeena bukk lii xawma laan di liggéey you need hand care I know right I apply them but still it's just, it's just a nightmare. I'm getting a hang of it slowly, like how to tuck it in properly without getting hot prop um, badly. The longer you do it, the more you find your own way. That's all. It's not magic, to be honest. But yeah, everybody walk there. Some walk there for years, like four years and stuff. The place is like five years old. It's new. Some people walk there since from day one, and they tell me the same thing that they have cuts in their hands. They still have it No matter how professional you are with it, you're gonna have cuts, you know. But I'm gonna oil my hands when I get to the park soon because I washed them just now. But you have to wear a glove. A lot of people at my work don't even wear a glove. I don't know how they do it. They do the bathroom with no glove. The bathroom. Hey! the bathroom. Not just the chemical is really bad, but the bathroom. And with the shower, the floor of the shower, everything. And we always have lot of gloves. Don't know why they never touch it. They amaze me, but anyway. People are different. I rather die than doing those bathroom with no glove. And the chemical so bad, so harsh. When I was new, when I was training, the lady that was training me, she wasn't wearing gloves. And I did not wear it because I did not even know there was gloves, you what I was cleaning the bathroom with no glove and I was so embarrassed. I I was like, eh, bathroom and I'll do and then the next room she would the bed and the bathroom like that. and my hands were already like starting to ruin like my skin my skin was already like <sighs> oh my god alhamdulillah rabbil alamin <sighs> so beautiful to be in the park here so then after the three days i start walking by myself and i and i and i know how to where to get everything and i jump on the gloves <laughs> <laughs> I'm like, awesome. So every day when I'm packing my stuff to go and walk, I take a lot of gloves that I have to even bring some back because I make so I have a lot. And they have all different sizes, small, medium, large. So I don't know why people don't take it. Ah, guys, this is so nice here. Let me lie down. I love it. And they cut the grass, everything. Look at this. Everything is so nice here. Ah! Oh my God, beautiful weather. Thank you, Allah. The weather is not too hot, not too cold, just we don't have nice weather guys we always have really bad weather so not even glued this work properly and i'm selling this work i better fix it before people will be like what the hell who's even buying that <laughs> the wake is so wicked. Why is behaving like this now? I just use the spray, the got to be glue spray. I don't like using the glue and the spray. Too much chemical on me, it's not good. Thank you. Mune, you are a good. You are looking good. I mean, thank you. You need a hand care. Yeah, definitely. You are a good friend. Thank you. Why I'm screaming when I'm reading? You are a good friend. <laughs> oh my God. Come to Sweden. It's nice. I know, right? Adi always tell me that. Let's move to Sweden. And then since we go to, since we went to London, Adi, Adi's now like London because he lose hope that we will go to Sweden. I told him that you guys are studying. You're in the middle of your career now. Like you're studying. If you go to Sweden now, you're not gonna have nothing like you're not gonna understand nothing there like the language language barriers is the problem hi thank you following you back anyone that is following me and want me to follow them back they should let me know dégg kii naan kaay ma takk la gone gu ndaw gi xanaa du yaane si man de sonn naa gone yi wax naan kaay ma takk allo sister Jambo su ma koli xef ba depuis bërki démb ba ma defee xef ba tey du bërki démb laa ko defa nag bërkaati démb boo sangoo yi du doy xefi melentaan yi ni melentaan si butu Sister Jambo. Yeah, the language barrier is the problem, you know. And children in the middle of their studying. they can't just move to another land that they're not understand nothing, you know. What's the purpose for that? What's the point? Sister Jambu I know, right? A lot of people don't know that I'm friendly because the way I do my videos and I'm just like screaming and telling my community, ah, <laughs> they think I'm very difficult and horrible. And I'm the opposite. But I don't allow nonsense though, but still. I'm like so easygoing. It's, ins it's insane. It's unreal. But people don't know that. They think me, I'm just difficult and crazy because the way I'm talking to my community sometimes in my videos, you know. <laughs> and they just think I'm so difficult and insane but I'm the opposite ami xawma lan ça va sinon ok merci beaucoup hi ça va ngi lay follow ku may follow mën naa ko follow ku xam ne mu ngi def vidéo yi nit kuy def vidéo yi taati nee na ka def duma la follow ak a fecc yenn fecc yi ak a saaga ndey ak duma la follow allo suma séeri bu ndaw ay vidéo yi taati nee def <laughs> ku ko def du ma la folo taxawal ma xalangu suñ ñax mi fañ ko dagg pen dagg nga ñii seen ñax mi nu mu wuteeg suñ ñax ma ñii seen ñax mi fañ koy dagg régulali saa yi ne fañ koy dag moo tax mu mel ni ñii suñ ñax ma ne fañ ko wëccoon fukki at dagg ko <laughs> boo ca tëddee fay taq sa létt yi taq sa yére yi billaahi waaye gisoon naa tubaab yi di ko daggaat de di génnee xaat pënd ba ca kaw yëpp waaye géej naa fa sax suñu laa ba ana soko no stress soko kay xaw anam mu ngi fa rek xay di ko dal soko fay digg soko ak asan <laughs> soko ak asan wetuñ baara it wetul waaye baara façon gi wéda di gi nga fa xuuteeg ñële soko ak asan fa ñuy dëkk ci digg vidéo yi di wax àddina si ne ñoom wetuñ fañ xamee stress tak confis ta dof te ñoom wetuñ yoonu gannaaw wiñ jaar ak toroxtaane àddina moo tax ñoom wetuñ ñoom loolu la ñuy wax àddina si seen digg vidéo yi yàllaa leen weer ñi di ko wax ma ne ko turki jam baña te kat nit ñi fañ leen di faale di leen seetaan ñuy def yëfi dof yi le xaw ñun suñ askan wi le wala baara it wétut waaye baara wétadim gi fa wuuteeg ñële <laughs> baara fa muus si wétadim gi waa ñële <laughs> bañ rakkati ku te fàngaañu tax nit ñi bañ leen di yónni surtout ki tudd sa ko noonu kooku moom nit ñi bañ koy yónni moom nit ñi bañ ko yónni mu ñëw di saaga nit ñi ndey ak saaga nit ñi te nit ñi xam nañ ne wetul de ba pare di ko yónni loolu xàq la de waaye nit ñi xàq nit ñi dañ leen dal wala tout moom sa xàq nit ñi danañ ko dal dóor yañ ko dóoroon bu yàggul noonu fa ko loolu du dara loolu xaajuñ koo def dara sax na continuer rek moo beneen ko ba lakk bi saaga noonu tudd aadamoo noon ba pare gi nga so soko ci boppam xaji tubaab yi laay hudde mën nañ maa fekk fii di ma woowu moo tax may xool na ñu ngi ñëw soko ci boppam ah how much is that week this week I sell it fii I sell all of this it's just 85 pound guys sale 85 pound <gasps> subhanallah sorry guys so and what was i'm saying <laughs> um yeah mu ngoog soko fa doon wax ne uh, kële num tudd football kat bu bum ne di lëng fansam yi a you know nekk nice si fansam yi ndax nit ñi koy dóor <laughs> gis na vidéo ma ne ko laay lay la laa yaa mën a fen kii deful nit ñi luñ koy dóoree newut di saaga ndey nit ñi fay fay bégal Sénégal yëpp di leen dugalal ay góol yoo xam ne Sénégal la seen gàcce gi lay faxas suñ tiitee ba duñ mën a jonkoon di xaar góol bi dugg mu dugal ko loolu yàlla du nangu sax ku ko soxot tam kon rek koo dóor si ngelaw yàlla du ko nangu borom dana ngaana ci ngelaw yàllaa koy ngaanaal fa xuuteeg yow mi nga xam ne bu seen nga direeku ni ami jóob muñ jaale di saagande ba jant so ak a xas nit ñi ku ne nga lonk xas ko saaga ko ba jant so <laughs> nit ñi di la wut di la dóor <laughs> ba wutee kële nga xam ne <laughs> you nit ñi fañ ko bugg bay jooy ndég liggéey bu baax mi muy invite me to England oh England mu ngi nii ñëwal England invitation day in euro ah si euro euro day téeméeri euro la waa danga war a def téeméeri euro xaw ma euro xaw ma yow ban dëkk nga ne téeméeri hir hiro hey God téeméeri hiro ak fukki hiro ak waa téeméeri hiro ak fukk wala téeméeri iro ak juróom mooy war a nekk puus bi ak mees bi yëpp ci yow mm-hmm. su dee dëkkab hiro nga dëkk du mooy ay jamono yooyu hello babies Aïcha jërëjëf thank you waay Italie nga ne waaw téeméeri euro ak fukki euro wala téeméeri euro ak ak ak juróomi boo ko defee ma yónnee la ko xam na yu ma oda mu si yoon wi di ñëw ba xam yeneen nit ñu jënd ñaari nit seen oda bi boole naa ko si waaye bëriwut de xaw ma xaalis yi jënd carton ak mais sëpp ko ni ab Chinese buñ jaale kuy jënd nga jënd léegi kon nay te jëndoo léegi bu mees yële di kee buy xag si jeex nga toogaat mm-hmm. xaaraat ba suma ma xamatee xaalis oda ñetti pepp nga xaaraat mm-hmm. par ñetti pepp lay oda xaw ma xaalis waaw ba su ma xamee xaalis na mën a oda magasin ba sëpp waaye fi ne nii <laughs> wax naa leen ko di penda gi nga mees yi moo ko xamee xees wax naa leen ko faale wuñ ma far mees ba jeex juróom benn rek laa si amoon ba mees ba jeexee na ñu dikk xaw a leen picc bi suma xar xanam bee de picc yi fañ saxat de taxañaan fañ bañ ma am jëkkër moo tax ñuy dikk suma xar lii moom xaw ma lum waaye lii picc la man de maa xiis ba tey lekkuma yëgu leen ne lekkaguma te ndox rek laa naan I like your wig is how much eighty five pound lay jar Gambien dalasi xaw ma ñaata la de dana wara a dana war a ëpp five thousand de dana war a jege six thousand mm-hmm. dama dee jaay Gambia taw waaye gis naa jaay Gambia woy mees yi ma tëdd dee tax mënu maa lifi su ma jaayee Gambie ma koy yónnee ñi indi bagage Gambie du yàgg sax ma agsi so it's like that gis naa ko mu naan kii kii fañ lay dóor oytul fan si man sax noonu lañ ma defoon naan ma I love you bañ ne noonu lañu dóor ma oytul de Sadio maane du ko faale sax Sadio Mané fa baax ta wàccee boppam moom du tax Sadio Mané tiit xaj boppam ci kaw. saa Mané fa mel ni ku gëm yàlla ku gëm yàlla du ragal dara moo Ami Diop yem man nit ñu bëri fañ foog ne gëw ma yàlla waaye akamaa gëm yàlla du ne lu ma muurugul rek moo tax gëw ma yàlla non man ñu bari ngi muuru maa leen gën a gëm yàlla man Ami Diop man rek si gëm yàlla woy suma mbu maa ngi wane suma dënd bi rek góor ñu caga ñi cot coteeti woy suma mbu mi danaa ko teppi sax sista jàmbur yow de su ma ñëwee Sénégal si yow laay dal incha sista yow wax dara. you are young that's why you have them. have what. can't remember what part of my topic you're talking about. yow man màggat mi le mu naan yow màggataguma màggat yooyu waaye maa ngi xaw màggat de maa xam bee jaaw yu bëri sax stress bi ma bee jaaw stress fay bee jaani te stress bu ma xamee woon xat yi yëpp léegi laa léegi laa jàng nooy stress waaye xat yi yëpp ndeysaan deewoon naa so moo tax in your face all right no no no I'm not young like my daughter and my son they are young wooy ooh I better leave I better leave <sighs> I better leave Sénégal dëkkuma Sénégal de Gàmbi laa dëkk waaye suma baay yi day njóobeeni Sénégal yi dëkk noon bëgg naa koo seeti suma dematee Sénégal don't do that <laughs> I'm following you Bontala ah, Diallo do you do videos or oh. <clears throat> honesty welcome welcome all of you guys welcome know what why am i opening the guest request people are gonna come it's a mistake guys please and these senegalese guys are gonna start saying they want to marry me again do you know lot of these men they want to marry me they cannot actually marry me Like they can, but they cannot really keep me, a lot of them. <laughs> they cannot keep me because I'm easy to marry and I'm easy to keep, but I'm not easy to keep in a way. Well, I'm not easy to marry, to be honest, now that I know what I know, but I'm easy to marry and I'm not easy to marry, okay? Because I don't go for anyone and I don't go for anyone, not because of look or money even, but also the way the person communicates is teaching me a lot about them. and I can tell straight away if I marry this man, I'll suffer. And then I run for my life. That's what I mean by that. But also, why I say that, you know, I'm not easy to keep is the fact that it's hard to explain, you know. Just, you know, the things I talked about in my videos that my community people do, Wahal Holof. <laughs> I a lot of our men do it. come to Dubai. Ooh, nice Dubai. When I have money one day, inshallah. waa waxal wolof waa lu tax may wax wolof yéen yéen a ma moomam lan tollu fa le wolof never dootuma waxati wolof sax never ever ever ever again faa ko bëgg a dugg waaye kii xam nga lu muy wut amul lataa ku dem ak góor ak Sénégal laate allo allo waa waa yow looy wut ci vidéo bi lum do <laughs> Ami Diop naa def <laughs> jàmm ma rek kay sant yàlla alhamdulilah yàlla jàmm yàgg amiin waxagoo lay wut vidéo de mm-hmm. mais fiixlu kay looy wut ci vidéo bi lum do génn na si sa jàmbu génn na <laughs> mu ne I I can take care of you oh that's nice you can take care of me I'm not hard to take care of it's just because me, it's not even about money. I'm not like materialistic. Although I don't want a husband that is working and not giving me anything, like not supporting me, just there to have sex and eat, you know, and sleep. <laughs> I wouldn't want that, but I'm not like I'm wicked or I'm like so greedy and I just after money. I'm after the person how he treat me and how he talk and who he is as a person than the money. That's what I'm trying to say. But I don't want a person that you know that that is like lot of our men the way they think. lot of our men have a mentality of you know just it's like they marry you but they don't take it seriously, you know. And I know some of our women have that mentality too. But lot of our women that are adults, and especially the ones abroad and the ones that want to stay in a marriage, we don't have that mentality. <coughs> we do have a mentality of when, uh, of when we marry to you, we want to stay uncommitted. But a lot of the men, they don't have that mentality. Why I say that is that when you have that mentality, you don't treat the marriage anyhow. You protect it and love it and value it. You understand? You cannot treat the marriage anyhow and just ready to marry somebody else anyhow and just ready to lie anyhow, ready to neglect your wife anyhow. the ones that do that, they many. The ones that don't do it, they're not many. And those are the ones I want. <laughs> the ones that don't do that. <laughs> That's what I want. Yeah, the fullers have money, don't have money problem. We the fullers have money, no problem. Yes, definitely. You're fuller, and fuller people like to look after their wives. Fula people, when you meet a good Fula, oh my God. Look at those beautiful plant guys. Those beautiful flowers there. Oh, they look so nice. When you meet a good Fula man, you're never gonna find love again with anybody else. A good Fula man is like an Indian movie love. Those kind of love that I want, like an Indian love. that's how they are. I don't know whether because they look a bit like Indian. I don't know. They have a lot of hair, you know, and people. Hey, Fula people. I know Fula love. Fula love is the best. Here I am. <laughs> I don't even know you. You don't even have a picture. You're hiding. Who are you? There was one Fula guy that his name is Jallo as well in Sweden, and he was after me. Are you that guy? that guy is married in Gambia. To be honest, I really don't want to marry a married man. I don't know why. It's not just I'm jealous, even. I have jealousy for when I love someone, of course. But it's not like I'm going to be jealous of him and his wife, to be honest. But I feel like the man will have two problems to deal with, you know? I feel like, I don't know why, but I feel like when I marry a married man, I cannot have the support I need from him. Why am I feeling like this? I don't know I feel like he have to support me and the other wife and the children and the other children and his work and his life. It's too much for one person, man. We cannot get the enough support we need, both of us, both of the women. You will not get it, and that's not fair on us. This is my main reason. I don't even mean like money support. I don't care the man is a millionaire. I mean like physical and emotional support. that's what I'm looking for. I'm not looking for like money and You know, so that's why I don't want that, you know. Not me. Okay, you don't want to wife. lot of men like to wife, you know. Just saying that, but I don't know. What is the name of the man in Sweden? I don't want to mention his name, you know. But I think his last name is Jallo, I remember. I remember his name, but I never give him chance anyway. He ended up having my WhatsApp, but I never give him chance. I, was feeling so bad. He kept texting and texting and calling. I keep telling him no, and he gave up. I don't know whether he still watch me. He used to come here a and type "I love you," da, da, but he gave up. lot of people think I don't want to get married or I'm not gonna get married again because of what happened to me, and they're I will get married tomorrow if I meet that guy. Me, I mean, very positive and I don't care about what happened to me. I, keep going. What the hell? My top is just because the way I'm lying down. I'm so sorry, guys. Hello, how are you doing? I'm good, thank you. How are you? waxal xolof ana ñu dee wax waxal xolof hello, sister Jambur ñëw na sister Jambur ñëw na eh suma sister baa maa war a scrub suma face bi koo gëj a suma der te bu ma sangoo ni ma diwoo diwoo baax suma bi diwu ko hello sister Jambur ami def fine thank you defoo dara déedéet maa ngi nii si jàmm oh man maa ngi bugg a ñëw Sénégal a bugg a maa ngi bugg a ñëw Afrique a bugg a naa ñëw incha allah. waaw préparé yal na ko yàlla yombal incha allah. incha allah dinaa ñëw su fekkee ne sottiwul ren tamit xamal ne dinaa ñëw déwén Ali Ali after Christmas Ali bot mun naa xam ren. waaye suy sotti boori Christmas lay nekk moom du nekk léegi de. waaw bu soobee yàlla yal na ko yàlla yombal rek. incha allah waaw jërëjëf waay sista jàmm. ana xale ñi si jàmm. xale ñu ngi fay ndek. Mhm. yaa ngi si jàmm. maa si jàmm tey de ma liggéey di ma ne xaama ñoo tëdd fii waxtaan ak yéen. ngay noppaliku tey waa lool de baax na ci moom. may noppaliku sama yaram bi xaruta wér bu baax. wallaay liggéey bi la rek. mu ne I am a single I am a single I need a good wife and a friend for life. oh that's awesome. you will meet that person just take your time kii lu muy bind ni xaw ma lan bayree daas kenn xamul li nga bind allo sista jaamu sorry <laughs> yaa ngi ci commentaire maa ngi ci commentaire te xam nga mënuma riid <laughs> nekk rek naan xaw ma lan mbala ma riid genn wàll kii wa naan dugal ma nag kii di wane six pack di jaay sexe nii naan dugal ma kii <laughs> fa raglu moom ak bu six pack la de léegi tey mu am tubaab. ah waaw waaw. bu tubaab lay wut tubaab yi kay booy wane six pack foo mel ni fay saaga de baram bi saaga la joxoñ noonam lan baram bi saaga de bu dee moom la joxoñ du ma ko jël baram bi ci digg boo ko yëkkatee noonu loo saaga la. lool mooy FU ci nataalam bi laay sedd ku amul nataalam nit duma ko jël dëgg la hmm, bu dikkee saaga ma maa ko def non ami yow laa bëgg <laughs> waay suma këpp bi dana rot suma këpp bi ko kole waaye kool bi dëgëru du baax tuuti laa ci def kool bi xam nga duma ma ñeme chemical la te chemical bi baaxul ah ok ah, koy kole rafet na nag de. waaw spray bi nga dee def spray boo ko sprayé nga sol ko fay tax mu gën a dëgër. mu gën a dëgër waaw rafet mais ni nga létt. waa rafet na trop kon létt kay. <laughs> rafet na de. nga see bugg danaa la si indi lu may ñëw bul wax dara. baax na amul benn problème. bu may ñëw nga may waxal yi nga soxla yëpp ma jëndal la ko. léegi man su ma ñëwee indi sa doomi sax luñ soxla léegi su ñëwee nga delloo li ma ko jëndee rek du seer. waaw baax na waaw waaw baax na amul benn problème. ay këpp ak yooyu su ko sa doom yi buggee. waaw. sa jànq bi te du jànq la ñaata at la xam léegi. moo faatooy morom wala. kooka kooka am na fukki at ak juróom-ñett waaw. waaw moo mag faatu waaw ko soxla waaw lu soxla rek nga waxal la bu dee soxla wut këpp tam anything loo soxla yow bu dee daal wala anything léegi man su ma ko jëndee su ma ñëwee nga xam ne waaw def du dee seer mbala comme lu ma la waxoon noonu yaa ngi doon wax bu julli gi passé far den beneen julli ñëw yow gi nga julli waaw bi gis nga ko de léegi kay xanaa ma muñ rek ba ngay ñëw ak jàmm incha allah ma muñ rek ba ngay ñëw ak jàmm bu julli gi yàgg doon wari si julli gi passé mun nga koo def si julli gi nii passé waa tabaski bi fu mu toll nii moom kenn tarul dara lu tabaski bi. ñun suñ xew yu bëri yi moo tax ñun ñun niti Gambie Sénégal fay sonn penda. ami ñun sonn nañu xoolal ba pare fan yii yëpp billaay ami fan yëpp ami damaa nekkoon ci xew sama mag bu jigéen. illa doomam moo doom sëyi ji. te xam nga kooku dalay lay jege. ami nekkoon ci loolu te da ngay sonn te munoo bañ a dem. sa loxo day nekk bëgg a lijjanti say xale bëgg a ay xew ami lii doy na waa ami ñun sonn nañ de ndax ami bañ sonn fuñ toll ñu ngi takk nit wala ñu ngi ngénte nit wala julli wala weeru koor te boo demul ah gis na diw kii doomam la ndax sa doom ma te joxewul dara dem na nangam ak nangam munoo koo ñemewoo ko muy booy dee sa ami billaahi di nga fexe doy na waa fañ lay xas boo ko defut te ah eh, a eh, loolu la wax kay ah moom kay ñëpp joxe nañ waaye gis nga ko joxewul doo ko mën a bañ a def. Mm-hmm. te fa ñuy wax ne nga ah, bon ah, du lool du lool waaw li ñuy bañ Afrique Afrique li ñuy bañ tam mooy nga ñu gis la nga dëkk si néeg bu ok nga dëkk si kër gu ok lool lañuy ñuy bañ. dañuy yaakaar ne yow xëy na yow nga ko fekk yow sutura yàlla rek bi daa xam ne fekk nit yi li muy sutura yàlla rek waaye. doy dëkk bitim réew fii noonu la booy. waaw xas rek ñu foog xam nga. dañu naan am na. lu xew ju yëgal la lu xew ñu wax la te fekk duñ xam yow nan ngay dundee ak lan mooy sa situation ban situation nga nekkee duñ ko xalaat. waa tubaab yi kay amuñ problème yooyu loolu la kii di a amuñu problème yooyu ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ci jàmm ñu nekkuñ ci jàmm de ñoom ñii ñoo nekk ci jàmm ñoom. I know right. waaw ñoom amuñ problème yooyu am na nit ku ñuul de wax ñoom fañ bu suñ suñ doon tubaab sant yàlla waaye man ba tey sant naa yàlla li ma doon nit ku ñuul de. waa dëgg la waaye kon ñun yéen yi nga xam ne dañ koy topp ci nit di ko ko meree di ko ko sikkee ñoom duñ def yooyu ñoom ñoom duñu def yooyu mm-hmm. waaw ñun li ñuy mën a sikkante ak xew yi du jeex te yow sooy takk nit xew la penda su xew la passé su xamee doom xew la boole weeru xew julli xew tabaski xew keneen nit di xam xew di la yëgal yow foo foo jëm ci loolu yëpp xalal jooju yëpp moo tax Afrique ñëpp a ngi ñàkk xew yee leen yàq la Tamxarit incha allah noonu bu màggal jotee noonu gàmmu jot noonu ñun daal moom ñu ngi nii rek. yàlla ñuy suturaal ay màggal yeeg yooyu. gàmmu yàlla ñuy waaye dooy na waat. <laughs> billaah sutura oh yàlla rek waaye. it's crazy. xam sa bopp daal bañ def loo mënul daal àdduna daal man daa amee loolu laay wax lu ma mënul moom du ma ko def te du ma ko du ma ci dugg sax. baaxut def loo man wax xam sa bopp waaw xam li ngay def <laughs> loo loo mën nga def ko loo mënul nga toog jàpp sa bopp man daal loolu laa ci gis bu kenn forcé loo mënul man du ma forcé lu ma mënul am jóg baaxut du ma forcé mukk lu ma lu ma am laay yem lu ma amul ma xam ne aw ma bu yow àdduna bi yëpp def ko wala ñu am ko def ko man sama yoon newu ci loolu man daal lu ma mën laay def lu ma amul ma xam ne aw ma ko ma jàpp yàlla waaye du ma forcé ne nit def na lii wala nit am na lii naa rey sama bopp def ko du ko def jamais. kiilum bind mu ne noo moo ngi xaw ma lan yàgg yàgg baara lan a ngi yàgg baara gude góor gi wax naan dugal ma anam dem na de na ñëw borom sexe pack yi xaw ma sexe pack xaw ma <laughs> borom sexe pack yi. man yéen commentaire yi mënu ma ko lire ami <laughs> Penda that's good waaw Penda kay moom africain la waaye moog mën a xem suñ jikko yu bëri moom tamit xam na ne baaxul ci jigéen ñi ne suñ jikko yu bëri baaxul si la Penda bokk mm, Penda ma ne suma tànk métier ak coono bi laa demaloon ca ca docteur ya waaye ah da ngaa demoon ñu xoolal la ko wallaay tànk yu métti sax torop tànk yu mu ngi wàññeeku to bi xone su ma la waxee dëgg maa ngi miin si liggéey bi waaye dama demoon daal because dañ may defal test xaw ma daal dama xam urine infection xaw ma moom lañ may testal so dañ moo xoon ma yóbbu suma seben ñu test ko falaa laa demoon ah defal la analyse waaw waaw moo tax tey de ma liggéey so waaye dama waroon a liggéey email naa sama boss si suba wax ko ko mu ne waaw mm, so dimanche laa mm. demaat mm-hmm. tànk yi de moom bio booy tëdd rek boo amee sa karité wala loo ciy forote di ko ko forote mu ne hello Ami it's me Alhaji Cissé I love you so much jërëjëf Alhaji love you too. maa yaa ngi Angleterre wala waa Angleterre laa rek kay. faaw keneen gune góor gu bugg de gune góor yi fañ may sonn rek tamit maa sonn. hi ah. from excess xaw ma. Ah, foofu foog naa UK la kay adresse bi mu bind noonu tur watching from Italy thank you sister Jambo xanaa dara naka maa ngi rek ami maa defoo dara ami don't worry everything will be okay oh thank you <laughs> positive rek moo ko yor <laughs> léegi bu ma jaaxle yëpp dana baax. noonu la àdduna moom noon la rek baax na lépp baax gune góor gi de ñëwee ko xama bu ñëwee muy wax. ah tey daa a nuyantee yow ah, yi fañ may sonnare surtout gune yu ndaw yi. waaw ah, loolu la de. ñenn ñi suma pans lañ waaye ñenn ñi fa ñuy ñëw di ay waxi kaya kaya na ana baaraak nangam nangam ak. kenn xamul. <laughs> baar <laughs> man baar ay <laughs> reer may def. barki salaat baar ya baara witul waaye su ma ko jàppee gëj naa koo defal vidéo bu bon danaa ko. Ah, defal vidéo bu bon ah gëj nga koo defal vidéo gëj nga koo defal gis naa ko fan yii mu naan xaw ma dafa hôpital ak xaw ma lu muy wax. day fen day fen baara lu mu wax fay fen lu mu waajoo fay fen su feebaree sa waa feebar na wét ak jàmm waaye baara fen su ma ko jàppee danaa ko defalati vidéo <laughs> baara sina baara baara from Gambia ah ana Gambi na mun Sonko mu ne ami wax ci Sonko waxal lu loo moom man li maa la wax ne xaw ma ko Sonko ku bëri kaleeraam yeeg nit ñi dee na ci xibaar yi. ah dëgg la ñu war a wax de duñu wax yéen kay yéen waane te sibbutu te lu nit wax ci mbiri Sonko ngeen riit ni ay dëmm yu gi ndawal ngeen a xam jot a sibbutu te ngeen a dee yéen ñiy wax ngeen a bokkut ci ñi dee ngir Sonko moo tax ngeen di taltali bu ngeen deewoon bay suul leen ba sax yi wan na leen bu yàgg ngir Sonko seen yax yi du ne fii di xuloo doy na waate wallaahi. seen yax yi xuloo ci gune yu ndaw yi dee ngeen bokk ma ne xam nga lu ku xam ko xam ne sa doom dee ci wala sa mbokk dee na ci na borom génn def vidéo. billaay ndeysaan wax bi ñuy dund gannaaw bu seen doom jeexee ba tey métit bi ñuy dund. ak ni nga xamee ne sonko jarut dee kenn dee ci àddina. na jar man de doomu aadama jaraluma ko. wallaahi jaraluma ko ak ku mën a doon jaraluma ko. wi. man nit ñi dee rek laay wax ne buñ dee nga naan mala la leneen lu ma ah, wax nit ku dee kay dafa metti xam jot ndax ku mu doon sa ah. mbokk wala mu nekk tey sa dëkkandoo wala koo xam tey dina la metti ndax bakken dafa mm. foor ah. nit moom dafa metti kenn mënut a fexe ba ba ne du dafa metti ak ku mën a doon dafa metti nit ñi dee pare ñu ne bu kenn wax ah loolu moom ñu mënu ko bañ wax ndax bakken dafa foor bi bakken dafa foor bi kaleera yu tilim yooyu moos mu ngëb ko ca digg vidéo ba mais ni ku ñuy waaj a jaale yàlla mi sonko fa say ne fa jëfuur ta say. ah doy na fa say te jëfuur. kubeeri kaleere yële mu ngëb moo. <laughs> <laughs> ba tey mënuma gëm sonko kubeeri kaleeraam yi kon mën ngay wax di kërëng kërëng ci caméra bi kenn mënta dégg li muy waaw nit ñi ñëpp kërëng kërëng ma ne ko very good maa réewee bu ko sewee sama bopp nu mu koy déggee nu mu koy déggee boo woowee nit ñi kay na nañ gàddu ay <laughs> man nit ñi damaa <laughs> waaw billaahi damaa waaw lii kenn musu koo gis Afrique rek ci li mel nii kenn musu koo gis billaahi du caaxaan lii ah, ah. oh thank you so much mu ne Ami anytime I pray I'll pray for you maa am jëkkër jooy ba keneen ko xees ko ma bëgg a mu ne ah ana mu ne mu ne mu ngi Sweden de ak góor ak pël la de mu ne gisoo ko ni muy bindee noonu mu ne saa wu ah. jullee dana ma ñaanal yàlla na ne yàlla na leen yàlla boole yàlla jàppale leen ah xamaguma ko de bul waxagum lool gisuma nataalam xaw ma nu mu mel ah bu dee ku baax la kay yàlla na leen yàlla booleeg moom Ami waaw waaye xamaguma nu mel bu dee borom benn bët la it fa war a boppam ma xam ko man borom benn bët bañu ma ko. waaye ne yére nga ay yi kenn xamut kenn xamut nataali lu mu xamee nii. ah gisoo photo. <laughs> déedéet xamee wut de <laughs> mu ne dana ma ko yónnee mu ne aw seen. waaw gis ko. <laughs> ok mu ne dana ko yónnee. Mhm, dafa am les Sénégalais tukkul sa xaj. man la sénégalais ak la gambien way suma mbub mi <laughs> man suma baay la senegalis man suma baay la ba kawlax yu ñuul kukk la xame suma baay la ba kawlax yu ñuul kukk jógee senegal ñëw toxu sa gambi la takk suma yaay la jut ma la man jógeeni sénégal yi la la jógee la la joor jóob la suma maam la la yow nga xamadi ta dof la tukkul Abi Diop ba waaw yaay ko bokk maam Jaara Buso ñangee ni maam Jaara Buso yi mooy maam Faat Ñang mi jur suma maam suma maam mi suma yaay Faat Ñang mi jut Faat Njaay mi jut suma yaay sa mhm. ñangee ni maam Jaara Buso yi la jógee la man mm. Sénégal laa la yow tukkul la mënoo maa teree wax mbiri Sénégal la yow nga deewut la fañ la suulut ba sax ya di la wan la moo tax ngay taltali la buñ la suuloon ngir sonko la la la la la jaale la bu yàgg la doo wax. la faalay bolok nag waaw la faalay bolok fi mu ne ñu jaale la waaw mënul leen wax sonko lu nit ñi dee ñu lu leen danaa ci wax sonko or not sonko na tukk ko ko faale kum do yéen gëmu leen seen bopp moo tax ngeen mel ni topp nit ñi dar ni ay jaam yuñ jaale macha allah ami you are the best ah su ma jëkkër mu ne man maay the best su ma jëkkër jooya ji gi ko. <laughs> léegi tey mu takk ma sa waaj ji ah I want to be married but I need a man who's who is so romantic oh who is so romantic la bëgg a naa waa not for money but I want to be. boor yi xama lan haa nice fi kii de jigéen la xam naa ne mu ne fa bugg a am jëkkër waaye jëkkër ju romantique la bugg mhm, te faalewul xalal waaye romantique danaa defati vidéo bu mayem jëkkër <laughs> ma téléphone bi caajut maa war a ñëw ñibbi vidéo mayem jëkkër ma jëkkër ka tey mayee nit ñi benn xam na ci ah. beneen jigéen boo xam ne benn góor fa ko mit fii ak góor gu ne Amérique waaw ak góor a Sénégal gu ne fo fa fi mit benn jigéen fii ci sama vidéo yooyu may def déedéet kay. waaw waaw. ma kontaan ba te su la ah? si wax la ne mit na nit xamal ne xam na ñeneen ak ñeneen ñu la koolul. wax nga dëgg. waaw mu ne fii keroog ba ma def vidéo boo di wax nit ñi ku bugg jabar ak ku bugg jëkkër. fa la gisanteeg beneen jigéen boo xam ne sénégalais la moom it mu ngi bitim réew fii xaw ma ban dëkk. waaw te moom mu nga yi bindante toppante bindante ba fi mu ñu ngi waxtaan mu ne. amee kay xam nga ne kon loolu lu baax loolu rek yàlla defal na ci tiyaaba xoolal loolu rek. Uh-huh. ah loolu kay lu baax la sax. waaw waaw nit ñi bañ ciy mit de fa am fayda de waaye man it ñaanal leen ne ma xam moo gën may wutal nit ñi ba pare te man xaw ma ah loolu de du jàmm. dégg nga yow kat na nag Amina wax yow gis nga yow yow waaye yow gis nga bu doon gisoo nga gisuma yow moom Ami yaa ngi gis. Ah. ñu gisul gis de. maa is a good co co living rek. it's complicated because yàlla baax ku la doy nga gisagul ku waa incha allah wax nga dëgg kay. xam naa ko may kaf noonu rek nit kay dañ la dee topp saa yi ne yow yaa nekk di xaar ah. kala jaral rek. di xaar di xool ku la doy. waaw kay xëy na yow la waaye yaa ngi gis moom. Mm. xëy na dangaa gisagul koo xam ne doy na la. xam na keneen kuy bind man nopp naa la Babacar. amin I love you sa faana faana bi neex neex moo neex rek moo neex sorry waaw jërëjëf love you too maa ngi lay follow yéen may follow tey def vidéo yëpp wax leen ma dinaa leen follow back ku defut vidéo yi taati neen wala vidéo yi saaga ndey wala vidéo yu bon danaa follow borom <laughs> saaga moom baaxul billaay saaga baaxul. naa ami is for me. hee suma loox bu xees bi mu ne mu ne man moom moom. mu nekk kenn ku waxati ne mu fa ma bëgg. na vidéo yi vidéo yi na danaa si am jëkkër benn benn nit ñi nañ reeba dee naa si am jëkkër de. fay fay ah, maye di ko ci am na am na ñu bëri ñuy ay vidéo seen jëkkër yi lañ de xamee jëkkër seen vidéo yi lañ dee xamee jëkkër. dëgg la wala jabar. Mhm. wallaay dëgg di ko ci am de. danga si dee xam ku baax na su la yàlla dimbalee. du ñu si nekk yàlla fekk rek mu nekk ku baax ki ngay bëgg rek mu nekk ku mm. baax a baax. I know ba pare nit ñi lay seetaan dañ la dee gën a xam sa jikko xam ni ngay defee yu ci bëri si internet bi so dañ la dee gën a miin ñoom ñu si bëri. waaw mi ngi noonu. tan nit koo tasee nii rek ci mbedd mi you know so it's complicated but yeah xam nañu ne am jëkkër because of vidéo yi wala jabar. Mhm. loolu la xam nga gis nit nii rek mun koo woolu wala affaire am doy la yombul. ah Gambian nga jërëjëf love mhm. di nga xaw a ñaaw njort doo xaw a wóolu. waaw waaye nag yàlla mën na la cee boole ku baax xam nga nit mu mënoo koo xam ni tam yëpp léppam. Mm. ay no fa raglu ba bugg a penda. waaw loolu la soo dee ba toll fu ma toll nii seeyaat ni mu ragloo penda. ah am nag wallaahi li nga wax xam naa ko de. parce que nit ki suy wax ak yow it du tax nga xam jikkoom te soo ragalee ngay nekk di wax naa oh my god it's crazy. Mm-hmm. mooy kon li ma lay wax rek mi ngi noonu. <laughs> mi waaye yàlla baax na fa raglu de yàlla baax na di amina xaar ma bàyyi la jël ñeneen ma man may dem sax téléphone bi caajul man kay may jog ñibbi fi mu fay téléphone bi waaw jërëjëf waay sista jaam beneen yoon xaay ma xale kii la fa mel ni waaye fa dégg xolof ndax fa xamee ne taala tubaab beem xaay ami namm naa la waaw sista jaam bu jërëjëf nuyu ma xale Thank you so much. I mean, I think Penda is your good friend. Yes, Penda is one of my number one follower on this TikTok. Penda is one of my number one follower who is very genuine and open-minded and honest. She think like me. And she's just like another half of me. She's just like my sister in Gambia. She's just like Kumba, my sister in Gambia. Penda is like that. Mm-hmm. Penda is like my sister from another world. And her love for me is real and just the way she speaks. I can't speak Wolof, but I can only know Namanala. Oh, are you a white woman? You have this picture. Is that you? That's amazing that you know that word. I, I do Wolof lesson, by the way, if you want to learn. <laughs> yeah. You just email me. My email address is my username at gmail.com. And I'll teach you through WhatsApp or Zoom call my lessons are only 25 pounds. They're not expensive and they're very good. From one lesson, you're going start speaking. Especially, you already know Namanara. I mean, no stress. <laughs> All right, guys. The my new damn telephone be charged. I have to go, guys. The phone is not charged. she's so nice and genuine and she just she also is just like me yes i would like to be glad if you can teach me awesome aisa email me i'm following you now in case you have any problem trying to contact me you can message me but you should contact me easily no problem if you just go on tiktok you will see my username is on the top and my email address should be there amyolof at gmail.com ignore my nose i've not oiled my nose this morning when i saw i mean just now before i go i've not oiled my nose it's so white and then i keep touching it which is even worse so yeah just um, <laughs> that's the price for being a black person <laughs> when you don't oil your face you have some white stuff going on i've not scrubbed my face for so long that's why i'm gonna do that today don't mind me guys so yeah uh, so you just email me username at gmail.com amiolof at gmail.com mm-hmm. I teach Mandinka, I teach Wolof, and I also teach English to people that are Senegalese or Gambians that cannot speak at all, that my English are a little better than them. I can teach them the little bit I know. But definitely, I can teach you Wolof 100% and can also teach you English sorry, I'm uh, Mandinka. My, my are not perfect, but I can make a good conversation in Mandinka. Rarely any word that I cannot understand in Mandinka, barely. So I can definitely teach you your basic Mandinka language and Wolof. Email me, amiolaf at gmail.com, and I will check my email, and then we can take it from there. You pay through PayPal or Cash App, and I can give you a lesson. It's up to you. Even today, if you want, I'm not working. and I'm also not working on Saturday. So, but I also finish work early anyway. Like I can do evenings if I go to work even. So yeah, guys, again, have a good day. I have to go. Yeah, man, I'm one of them. man mi maa ngi dem téléphone bi charge ngeen xendu jàmm I have to go guys sorry du ma leen mën a jël téléphone bi charge te dama war a dem Right, guys. Take care. See ya. If you know anybody that have a Mandinka husband or girlfriend or Wolof husband or girlfriend, and they want to uh, learn the language, just let me know. It's very important when you're with someone, you understand a little bit of their language. Extremely important. Not just it's going to make the person and the love to be stronger if the love is genuine, but also you know whatever is going on with the person because the person can say everything in front of you and you don't know nothing. And it's just so annoying for not knowing the word what the person is saying. I was gonna go crazy if I have a partner like that, to be honest. No. So the language is not hard. If I can speak English and I've never been to school in my life, I only been to college here a couple of months of my life, and I can speak English and read it and write it. I'm not the best, but I can speak, yeah. then you can do it. It's nothing. Three five three three four five. What's that? So yeah, guys, greet your kids from me. Oh, please, I cannot greet them for you because they don't know you. I don't normally introduce any man to my children until I'm so. But anyway, we can talk definitely, no problem. Inshallah, guys. Take care, guys. Bye. Have good day. Good evening. kenn du leen jàmm jërëgeen jëf baay dinaa leen gis incha si kanam baay kenn du leen jàmm yàlla def jàmm I pray for peace and happiness and health and wealth okay guys yàlla may jàmm fanu gudd wér gu yaram ak wërsëg bu bëri wu ñu